Voilà, coach, vous venez juste d'être, en tout cas, de recevoir le Sargal. En tout cas, quel, quel, quel, quelle est votre première impression après euh, un tournoi que tout d'abord, euh, euh, on remercie le bon Dieu nous avoir donné la santé et aujourd'hui de nous permettre d'être là. Donc c'est une occasion de vraiment l'État du Sénégal, la Fédération sénégalaise de football, le monde sportif, euh, la presse sénégalaise, euh, donc euh, sans oublier personne. En tout cas, c'est une fierté pour nous de recevoir euh, ce Sargal euh, après euh, un gros tournoi à faire parce que l'objectif a été atteint depuis les phases de demi-finale. Donc en quittant à Dakar ici, ce n'était pas du tout évident. Et après, voilà, il fallait croiser une, une, une, poule très serrée, poule de la mort, le Portugal, l'Uruguay. Et ensuite, euh, euh, avant d'aller battre en quart de finale, euh, euh comment dirais le Brésil. Et après, voilà, tomber euh, sur le Japon qui n'est pas, qui pas un inconnu sur le beach Et après, voilà, c'est quelque chose de grandiose. En tout cas, on s'est arrêté en demi-finale. En tout cas, on remercie le bon Dieu. C'est l'occasion aussi euh, d'encourager mes joueurs. Et ensuite, de les dire de continuer le travail. ça va venir, Inch'Allah. Ah, maintenant, après, voilà, juste à notre arrivée, euh, on pensait que l'année était terminée, on pensait aux, euh, aux, vacances. Et après, voilà, on reçoit euh, une invitation comme quoi on doit participer aux, aux coupes intercontinentales qui doivent regrouper les 8 meilleurs au monde. Donc c'est ça un grand tournoi, une autre Coupe du Monde, on pourrait dire, mais sous forme de, de continent, selon les représentants, des, des représentants des, des, continents. En Europe, il y aura trois et après, voilà, côté Asie, il y aura deux. plus euh, l'organisateur Dubaï, ça fait 3, et après voilà, en Afrique 1, et après le reste, ça va compléter les 8. Et après voilà, et ça se passera du 2 donc l'équipe va entrer en regroupement à partir du parce que normalement on devrait entrer le, le, le 4, mais comme euh, moi personnellement et mon staff, euh, il y a certains qui doivent participer au stage d'entraîneurs qui doivent se dérouler du 4, 5, 6 pour euh, le syndicat des entraîneurs, que je salue au passage de mes collègues.

on verra euh, s'il y a la place, on va, on va aller jusqu'au bout quand même. Quelle est la complicité entre le coach et ces joueurs Bon, moi personnellement, j'ai euh, joué espoir euh, avec certains. Il y, a, il y, a, mon frère personnel, euh, même père, même mère, euh, qui est avec moi, Momodou Silla. Il y a Alcine Ndiaye que je partage tout. Donc mon adjoint aussi, Momodou Diallo, euh, qui est un ami à moi, un conseiller à moi, un grand frère, malgré que c'est mon, mon adjoint. Donc pour moi, je suis le plus jeune du staff, même si j'ai les plus de responsabilités. Mais je pense que c'est des gars très bien. Et les jour aussi, vraiment, c'est des jour euh, très dynamiques, euh, très conscients euh, et ensuite des jours très responsables. En tout cas, c'est des jours que je n'ai pas regret de les avoir quand même. waaw di wax ginnaaw bi ñu sant yàlla di di wax yàlla may nañu ñu fekkali tey parce que jóge woon nañ fi si ay njaaxare di dem am ay inquiétude yàlla dem may ñu fa ndam lu rëy même bu fekkee ne sa jël ñu trophée bi dañuy wax rek alhamdulilah rabbi alamin parce que bi ñu fiy jógee objectif bi moo doon egg demi finale nekk si carré d'as bi loo xamante ne Afrique moo su fi am si biche que ñu dem def ko donc je pense que bi ñu demee ba yàlla def lu loolu ñu atteindre que ñu am objectif bi ñu gagné ko ne serait-ce que même bu fekkoon ne sa am na ay regret parce que ñëpp gisoon nañ ne waroon nañ mën a bi mais yàlla dogalu ko donc dañu def lu dul sant yàlla ñu ñëw fii nag ñu ñuy sargal duñ def lu dul remercier d' abord le président de la république bi nga xamante ne xale yàgg nañu yuuxu pour mu recevoir leen mu recevoir woon leen si coupe d' afrique bi joxoon nañ leen fi 10 millions donc loolu vraiment di ko si jaajëfal naam sax tey xaay bi neexoon na trop mais ordre mérite bi mu leen jox rek chevalier bi donc loolu c' est quelque chose loo xamante ne day rester dans nos cœurs et ensuite euh, la fédération bi nga xamante ne moom dafa mas a accompagner le beach soccer jiital si président Augustin Senghor en tout cas ñu ngi remercier le peuple sénégalais ñi nga xamante ne doon nañ gis seen statut yi peuple bi doon nañ gis ni doon supporter euh, la presse aussi gis na ni ñu doon accompagner si affaire yi en tout cas ñu ngi jaajëfal ñëpp di wax rek euh, Sénégal nii rek la yàlla nañu yàlla defal jàmm ba édition yi ñëw ñu jéema dem si kanam incha allah. waaw ñu ngi bi ñu ñëwee jàppoon na sax dañuy dem vacances ba xale yi ku nekk tasaaroo woon nañ. mais après euh, juste dañ recevoir benn lettre d'invitation dañu wax dañu war a dem benn coupe intercontinentale boo xamante ne day regrouper les meilleurs si continent bu nekk dañ fay jël ñi man donc boo xoolee euh, peut-être Europe nag par rapport ak seen dayo ni mu tey moo tax ñoom sax dinañ si am ñetti représenté après Asie ñoom dinañ am ñaar ak kii di organiser donc après Afrique indi bu ko defee ñu boole que ñuy doon huit léegi huit yooyu nag euh, ñoo ñooy jeu boobu nag dina am du 2 au 6 novembre ñun sax d'ailleurs dugg regroupement à partir du que le 4 la ñu waroon mais comme entraîneurs yi Sénégal syndicats yi dañ am benn stage 4 5 6 maa ngi seex euh, di leen jaajëfal euh, sunu secrétaire général Badara Sarr di leen si encouragé bu baax donc di wax ne moo tax ñu pousse affaire yi ba le 6 mais dinañ si dem si bismillahi rahmaani rahim di ñaan ban jour ban ci gaañu ñu fekk ko pour ñu mën dem jàmm ñëwaat jàmm. objectif bi ci tournoi boobu lan la pour yow. waaw mënul am objectif parce que tournoi la boo xamante ne yow pour la première fois ñu invité la fa nga fay dem. naam sax waroon nga fa dem bu yàgg mais ñu ngi ñu fay door a invité mënuñu fa fixer benn objectif dañuy dem rek pour jàng en tout cas bu ñu demee daal lu ñu fa fekk rek muy sunu place dinañ ko jël en tout cas kon ni ñu xamee rek xale yi dinañ xeex seen kantalaay kantam pour mën a am euh, représenter Afrique dignement merci merci